asalaamaaleykum bokki senegal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission démb tey nag seen émission démb dafa leen demal ci dëkk boo xam ne dëkku cosaan la muy caaro euh, Caaroy Géej di dëkk bu yàgg nga xam ne lii ñuy wax tey ji banlieue de dakaar bokk na ci dëkk yi nga xamante ni moo leen mag fuuf di dëkku cosaan dëkk ba nag ña fa dëkk wax dëgg yàlla bi waxtaanee ak ñoom ña ca ëpp ñu ngi jóge Kajoor ñëw sanc si caaro Caaroy Géej dëkk boobu nag tey moom lañ leen bëgg a xamal caaroy géej ñi ko sanc kóllëre moo leen boole ndax premier sanc caaro yi moo caaroy joor siiw na ci Mamadou Niang moo ko sanc mais li gën wér moo di mbokk mu ñuy wax Mexeet Fakumba Géey yaayam tudd Fakumba Njaay dëkkoon Saalifa Saalifa Cissé boo ko déggee ñu dellu Kajoor tuuti man ak yow bi jingee laa am tey ba njaay laa am tey ba mbay laa am Saalifa moo amoon les années mille trois cent et quelques bi ñu fa jógee soxna suñuy wax Fakuma Njaay moom meñ ñi ma xeet Fakuma bii ma lay wax Géy la sant góor gu ñuy wax medul Niang mu demba ndee la dëggën de kon sugeer ñu jógee jolof comme ni nga ko xame ni jolof magee wala boog ñu bari wax ne jolof moo mag réew yu bari ci senegal moo tax seen buur ëppoon doole buur yi ci des ba ñu joxe gala bi ñu jógee jolof ñëw Kajoor foofu la ñu dëkk ba ñu fa jógee nag moom mu ñëw fii sawu Mamedoune ndax sabab sabab bi moo doon ni ngeen ko xamee woon bu jëkk borom judd bu rëy bu toogee ba tàkkusaan dafay ànd ak ñi koy gunge ñuy doxantu jigéenam bu ñu wax ab sa njomb àndoon ak gàngooram gi mu àndal waruñu nag ndax li ñu gën a miin ci gàngoor mooy war gu bari meññi war ñu dañ doon dox ay bi ñu dajeeg buur ci jamono booba mu jàpp leen booba dawal jàpp am na ñu indi leen saw bi ko ma dun yëgee mu jóg ne jigéenam du dem kenn du ko jaayi ak njaam waaye bi mu ñëwee fekk jàll na mu façon yéene dellu booba am na soxna bu ñuy wax aram faxa ba am ñaari doom mbayi aram ak dëwri aram faxa ci kantanu yàlla nga xam bi mu bëggee dellu mu dajee góor gi ma lay wax muy maxet faa kumba géey lu ci indi njaay ji mooy ni ko xamee ku mag ne dañ ko daan dàkkantal ci wajuram mu jigéen faa kumba njaay mooy yaayam moo tax ñuy wax maxet faa kumba njaay bi ñu waxtaanee ñoom ñaar góor gi bëgg a dellu mu ne ko yow doo dellu fekk booba siiw na ci kajoor bu buur dee takk pour xare ji su koy dugal ci néegam ci buntu néeg bi lay jaar mais su génnee bu waree génn dañuy xiddi permis ndax du xaj ci bunt bi yow xam nga ne buur daa nañ ko yokk ba mu daan da ko 3 mètres gauche 3 mètres droite 3 mètres yooyu muy 6 mètres boo ci jamee doo jam jëmm ji noonu la daan def buur looloo taxoon mu bëgg a dellu waaye ki ko xam ne doo doo dellu dañ lay téye yàlla dogal bi ñu waree sanc caaro yi ndax sabab ndax am na ci histoire loo xam dañ koy jéggi maam maxet fàkkumba moo wàññi ay doomi gajanga doomi ñebbe ak ay doomi gerte mu nekk ay kemb kemb yoo xam ne gàddal ma moo leen jur bi mu ñëwee dugg xaloo ci place ba ñetti fan mais fa mu nekkoon mu wëralee gajaanga gi kemb gi ak sëpp mi ñetti fan yi bi mu matee mu toppwaat ko tànn naka benn par benn benn mankiwul mu ne fii lew na wexul mu tudd caaree joor foofu mooy njëkku sanc caaree joor ñii nekk ñoo fa daje woon moo tax ba léegi caaro yi fukki jàmbur ak ñaar lay am du ko ëpp du yées ñan ñooy nekk jàmbur yi mooy waa mbayeen ñàngeek may sa daañu nekk jàmbur waaye guma dund duñ nekk jàmbur ngéyeenu maxet fàkkumba imam ratib la ñuy doon ngéyeenu maam Demba mu ma xet gay démb kumba dinañ nekk jàmbur mbayeen gu maam sàmbay mbay daañu nekk ay jàmbur sëñ ba kër gu mag la nga xam ne ay jarbaat ak nijaay comme ni nga ko xamee ca Kajoor ak Bawol ñoo daan dëkk moo tax jàmburu sëñ ba amul aw sant ku ku fa waa sëñ Thiaba ne kii la rek kooku lay doon njóobeen ak maalikani kumba saar daañu am jàmbur njóobeen ak daañu am jàmbur njóobeen bu ma kebe kumba dana am jàmbur faaleen ak taaleen daañu am jàmbur ñii ñooy ñi nga xam ni ñoo nekkoon ñi sanc caaro yi di ay cosaan te daan am jàmbur amoon nañu nag ay wéttal wadde nag maam mbër gu wadd nekkoon nañu mbaaw nekkoon nañu caaroy géej mais ki ci magoon dafa mujjoon toxu mbaaw ñëw dëkki caaroy géej ëtt bu ñuy wax mbéyeen danaa ci ñemeñ ci wax ci loolu waa sàllin aussi daañu nekk jàmbur mais ñoom ak fayeen ñoo ko bokk sàllin gi ma lay wax Mamadou Wade Mamadou Diop Wade bii toog ci sa wet ndayi turandoom ci sàllin googu la bokk mooy sàlle nag ma jëre ak fayeen gu ma coree maram siis ñooñu daañu nekk ay jàmbur ñu fukki jàmbur ak ñaar mais bi ñu nekkee ca caaroy joor ma xet fa kumba ak maama dun dem del dëggan ak mag ñi maama xet fa kumba dafa mu jël imam ratib lii ma lay wax 1678 la woon maam Médoune nekk chef du village maam Sambay Mbay nekk jaraaf maam Mekke bi Kumba mu ngi bokk ci njóobeenu Kajoor mais mu ngi jógoon kokki nekk ndey jàmbur sàlleen gi ma lay wax nii góor gu ñu wax Fay moo jëloon soxna suñuy wax maram siis am ci sàmba yi maram siis ma coro yi maram siis ak ware fa yi maram siis sàmba yi màggul turandoo yi nga déggaat ci sàlleen ak fayeen yëpp turandoo yi sàmba yi maram siis mais moom amul doom màggul maam baram fay moom bi mu génn àddina maam ma jëri sàll moom nga dégg ñu wax ne fii ñu nekk ci caare géej moo fi jëkk defar gaal gu ñuy ab joow du joow dem jëli ko indi ko caaro yi booba ñu ngi caare juma ndax ñu ngi toxoo caare joor vers les années entre 1725 et 1740 ñëw caare juma caare juma moo nekk fii usine bi nekk ba pencem Sénégal mais kee bi fi ngeen demoon Medinatul Munawwara moo nekkoon foofu jaare musul egg foofu kon ñii ma la limal nii ba léegi waa ñànge bay bàlli njaay ñàng mooy seet yu laat ndax Mamadou Ndemba del dëggan moo ko jëkk nekk bi mu fi jógee doom bu ñam mbay aram faxa dëwri aram faxa mbay aram faxa dëwri aram faxa Gan Ndoy euh, Abdou Ndeye Gan Mataari Ndeye Gan Mataari Ndeye Gan rakkam bu ñu wax Baba Yaram Mbay nekkul Serigne Thiané ndax dafa génn àddina ci moomeel ak Mataari Ndeye Gan doom ma duñ jeex entre 1678 ba 1894 sët bu ñuy wax Alaaji Samba Xujja moom ngay dégg histoire am ak sëñ Touba ne moo ko jëkk a may wuteeru ñaari fas moom ngay dégg histoire am moom ngay dégg histoire am aussi ak maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhum wax ne mooy septième personne bi mu mujj mu ca njaar mi moo topp ci maam Gueye Njare ñooñu bi mu jógee ci maam la Samba Khoudia dem ci maam Moussa Niang maam Moussa Niang maam Abdou Samba Niang maam Abdou Samba Niang maam Momar Soxna maam Momar Soxna siti jeex ñu tàppi sita ñu tàppi sitaat yi kii ma lay bëgg a wax nii nag ci moomee la man Seydina ci laa amee pouvoir sama baay bëri di mbay ndoy góor gële nga xam ne li nga doon wax ci doom ak baayam moom dafa dund juróom-ñetti fukki at ak ñett il est né le le février 1900 à Yoff Ndinaat mu ngi ñëw caar yi fii 1909 yaayam ak ay rakkam ak i magam ñu ngi fi ñëw 1906 mu doon noon way juróom mu ñu doon wax Ali Guèye Samb Ali Guèye moo nekkoon géeyu lu juddu caar yi xew-xew moo tax mu dugg ci diine ñu indi góor gi ñuy wax duñ Bey mu ànd ak doomi ndeyam bu mbokkal benn ndey ñu ko waxee Mbaxoor Ndiaye ñu ñoo continué nekkoon tabarkalla macha allah géwél yi nga xam ne ñoo daan tëgg continué ci loolu niñ daan soxlaa géwél bu njëkk ba ngéwél di xew mais dépendant dafa mujj tuub bën na ay ndëndam sànni ci géej dem gëmi Seydina Limam aywa maam Samba Mbaye moo jëkk ñu continuer Serigne Thiaré gi ba mu jeex Baye Baba Omar mooy seetaat bi jëkk nekk Serigne Thiaré ginnaaw baay Baba Omar baay Momar Talla Niang ginnaaw baay Momar Talla Niang baay Mamadou Niang mu yaay njëkk mu caba yeen ginnaaw baay Mamadou Niang baay Madu Ndiir Niang ñu ko daan wax daam ginnaaw baay Madu Ndiir Niang baay Badara Niang mu njakaan dëkkoon ci ëtt bi xale bii di Aliou Ndiaye xëye muy mbéyeen nag ay ay kër yu bari ñoo fa nekkoon xaj na beneen émission danaa la mën a tasal yi ni mu tëddee woon bi nga xamee ni ba Badara génn na àddina ñu fal As Ñang asitakan Baye As Ñang asitakan fi lay jaare ndeysaan jaale Baye jaagaan ja waa keneen ñëpp tabarkàlla macha allah bi ñu jegee ci Baye As assi asitakan ñu fal Baye Jibri Ñang Momar Soxna bi ñu jegee ci Baye Jibri Ñang Momar Soxna ñu fal Baye Balla Ndiaye Ñang mu Abdou Samba Ñang l'actuel du village. moom rek moo ma sa nekk chef du village bu situ ci Mexeti Fakumba Guèye Sitou ci Madunu Demba Ndeye la dëggeen moom rek la mas a doon kon ci chef du village yi alaaji foofu la caaree toll. tàntaan ak lu doon seen métier wax naa leen ne la maam Madun Kajoor la jóge sabab boobu moo ko indi woon maam ma xeet wax naa leen ne Saalifa la jóge Saalifa Cissé boo koy seet. boo demee ba paase ngaa xam gu ndaw mu ngi woon ca kaw ngaa xam gu ndaw ñoom Cissé Jinge ñi may dégg dinañu xam li may wax foofu la Salif Cissé nekkoon bi mu tasee nag la Jinge am tey ba Njaay am tey ba Mbay am Toora am euh, ak dëkk yooyu ko wër tabarkàlla macha allah Kër baakar ni nga ko xamee ca Kajoor euh, maam Sambay Mbay mu ngi dëkk jatti moom tam waroon nekk sa du village di woon ko bari ay nag maam Kébé Kumba bii ma lay wax mbokkam Maam Matar Ndumbe la mu kokki mais bi mu ñëwee bay dellu pour bu demee libéré ay borom leeral ginnaawam su ko dellu siwaat dëkk bi ñuy wax yendu naan la génne àddina foofu lañ ko rob ay doomam mën naa ci wax Baara Diop Aram Ndaw Diop ak euh, Sakokki ñoom meñ ñeen jóobeen ki fi ne ba tey fii ñu nekk nii góor gi nga xam ni mooy ndey jàmbur di Baye Birane Diop Malick am téeméeri at ak benn at ndax il est né en 1916 moom la Cheikh Chadbou raayoon boppam 1917 bi mu génn àddina fii côté ñetti Cap-Vert nekk maam Fatou moom ci moom ne ko kenn la ci kër Malick Diop te bëgguma ko tane mais booy seet li ëpp ci matériel yu géej ci caaro yi gën ci riis doomi Baye ko moom wala setam kon njabootu shérif boobu di ñaanu shérif boobu dal na e, comme nag nga ne caaro yi e, nga soxla te ci 10 minutes caaro yi mbay lañu amoon sàmm lañu amoon daara lañu amoon fi ñu dëkkoon dex moo doxoon diggante géej ak caaro yi joor dex gu mag mooy fi tali bi ne ak fi ginnaaw ne lenn ci dëkk bi ak dex gu mag la woon garab bu ñu am sóol moo fi nekkoon ay sóol ak waax ñoo doxoon diggante géej gi ba ñoom mënuñu woon a gis géej mais daanañ dégg riir mi benn këlbu bu naan ànd ak nag yi maam Sambay Mbay ab këlbu moo ñëw géej jàpp fa jën wu ñuy wax paal paale jaar ci joor gi bi mu jaaree ci dex gi jaaraat ci joor gi tànk yi tooy ñu xam ne kii jàll na dex gi ñu topp këlbu bi jéggi dex gi ñëw gis géej ñu toxal caare yi géej caare yi joor fa mu nekkoon indi ko caare juma vers 1725 1740 booba boo déparé Tëngéej peut-être ngay gis juma ba ba ngay dem Yoof moo tax ñu naan caare juma moo tax dañ daan wax naan express jóge xaay ñaari roppalaan di ma maa ngi jëm caare géej juma ca Soorone maa ngi jéggalu nag ñi may wax Seydina Sall imam waxul Seydina Sall représentant xalif waxul Seydina Sall géwalu cosaanu caare yi mooy wax ndax nit tiir janaaxal xëy ni laaj Malick nee na da ngay naawe ñaari laaf nit sax su bëggee taxawaayam rafet dafay taxawaay ñaari tànk booba mag ñii mala wax nii mbay lañu yaakaaroon géej gi lañu yaakaaroon ak càmm gi lañu yaakaaroon gétt yi maam maali maam njóobeen amoon na gét njaayeen ñaari njaayeen yi bu nekk amoon na gét mbayeen amoon na gétt faaleen ca maam Siré Taal amoon na gétt maam Siré Taal mi ko ak maam amarul fuuti ñoo bokk bàyyi taaleen nag ak faaleen dañu di ay jarbaate ki doom ak i ndijaay comme ni sinte bi mel ndax maam sira si sisir ñoo bokk ndey ak baay sisir moo jur roos roos moo jur Ibra Fall Ibra Fall moo jur Faaleen gépp noon naa la jàppal noonu caaro yi kër për kër kana meññ kana meññ fan la mujje waaye suñu bëggee waxtaanee caaro yi ci fukki minute dañuy tënk rek maa ngi jéggalu itam ñi nga xam ne ñu ngi déglu yaakaar ne am na lu ma tëb déedéet émission bi moo ko laaje noonu ndax jamono kullu makaanun mahaal loolu la arab yi wax béréb bu ne la fa waxu rek lañuy wax gannaaw nag alaaji dafa soxla caare yi ci fukki minute te man ma xam temps wu télé nu mu seere ñii ñooy borom ndombi tànk yi ñii ñoo sancoon caaro yi lii la caaro yi daan liggéeyee foofu la caaro yi tolloon jamono waaw lii ñëw ci tuuru caaro yi comme ni nga ko laajee caaro yi lan moo indi tur yi ma ne la am na ñett ñu ci nettali ay nettalin mais benn bi moo gën a wér ñenn ñi dañu wax ni feebaru caar bu fi amoon doon rey nag yi doon rey jur gi ci la caar yu jóge ñenn ñi ne déedéet bi nga xamee ni jolof daanañu yónni ay gawar laa ko mën tudde ñu ñëw di ko kaver lëm seen ak jur ak seen i jigéen ak seen waxambaane yóbbu ba loolu neexatu leen ci la ñu toxal tata jili bu yu amoon indi ko fii tiim yëmbal mu tudd caaroy kaw léegi nag ñu amoon ñu daan monte guddi tudd ay éclaireur de pointe muy jaasiraato yi ak xonq bopp yi bu guddee boo jaaree ñu ne la jaar nga ne rey ñu xam ne yow fi nga dëkk ndax loolu moo doon moo de passe bu ñu nee jaar nga ne pat ñu ne jaar nga ne pat ñu ne jaar nga ne pat ñu jàppale yeew bu subaa ñu enquête la ba xam yaay kan ñeneen ñu ne déedéet jaar roy ndax jikko yu rafet yi fi nekkoon boo ñëwee ñu may la soxna may la tool amoon na mbaal mu ñuy wax làmbal dëkk bépp ko bokkoon ñu mbaalal la ci lu mu am ñu jox la ko loolu ñu ne jaar roy moo tax ñetti tur yi bu ci nekk ñëw na ci turu caaro yi géej gi nga xam ni mooy Thiaroye sur mer xam naa sax Thiaroye au côté de la mer la ñu waroon wax mais nekkul Thiaroye sur mer ndax Thiaroye dëkkul ci kaw géej kon nag alaaji lii moo indi turu Thiaroye yii lañ ci jël histoire rek doo dàq benn waaye da ngay xool yi gën a dëppoo rek yi gën rafet nga xalaat ne boobu moo valable ci dëkk ci dëkk bi du fii lañ njëkk ñëw dañu am beneen fu ñu nekkoon bañ fa nekkee toogin wa neexul ñu jóg dem kii sañ ci ne leen man ne gis naa dëkk boo xam ne buñ fa demee moo gën ndax am na tooy tooy am na toolu dër am na géej bu ñu mën amee jën ñu topp ko ñoon ñëw buñ ñëwee cër yi dañ ko séddoo waaw xam nga loolu def def bu rafet dañoo séddoo cër yi ñii jël imaama gi ñii jël dëkk bi ñii jël njàmbur yi noonu lañ ko defe woon muy euh, waa ñàngeeg ki ko sanc en 1815 di Médou moo fi njëkk nekk borom dëkk mu jël imaama gi jox ko ma xeeti Fakumba ba bi ko ko eh, waaw eh, biñ ko laajee bi beneen gor gu baax goo xam ne da doon sàmm diineem di wattu diineem laajee ñu ko dimbali pour ñu xeex ak noon bi eh, moom lu yónni woon mu dem moom maxeeti fàkku ba boobu ak góor gu ñuy wax rakkaam rakkaam la sax rakam bu ñuy wax am sa njomb moom la yónni noonu foofu booba naa tàng lool te loolu ngor moo taxoon ñoom li leen andi fi boo seetee sàmm seen diine la ndax boobu ñoom tuub nañu muy muy euh, maam euh, euh, Sambay Mbay di maxeet maxeet bu jóge tey ba di maxeet bi Medoune mi jógee njomb seen sàmm seen diine ak rawale seen diine njomb gi si sugeer moo leen tax ñu ñëw fi ndax ñooñu mag yooñu mag ñu ñu man ñoo xam ne gor lañu ngor la ñu feese woon ak jom doon ay nit ñoo xam ne ñoo bëggoon titre ñoom faale wuñu titre ñoom sàmm seen ngor sàmm seen jom rek lañ luñ la mës wax nag dëgg la masuñoo signé fen nga si duñu signé duñ def kàddu gi doy na ñu ne la nangam la rek nangam ñooñu nag am na ñu ñu meññ ñi ñu tamit am na ñu ci def jëf ju baax am na si ñoo xam ne dañoo jaxasoo nag waa kër maam Seydi am na si ñoo xam ne dañoo jaxasoo nag waa kër maam Baye Laay ndax boobu ñoom ñoom ñooñu la ñu xamoon am na nag ci mbayeen ñi nga xam ne ñoom ñu ngi jóge jóge jàtti mbay euh, euh, maam sàmbay mbay jur leen ñooñu tamit ñu ñëlee rek dañ dañ doon sàmm seen euh, seen seen gor rek mooy ñi ma la waxoon ñett ñi ma la waxoon ñëkk woon wax noonu dañ doon sàmm seen gor ñeneen nag dañu amoon jur moo tax jël ñu woon benn tiit dañu wax mbayeen ndax bi maxeet jële imaama gi kii jël borom dëkk bi moom dafa ne dama am jur du ma mën a toog ndax sama jur bi ci àll bi la ne kon nag damay man ci àll bi la lay ne muy maam maam sam sam sam mbay mbay moom nga jóge jàtti jàtti na keneen boo xam ne tamit ñu ngi koy wax euh, maam sam maam samba euh, maam samba xuj xuj maam samba xujja mooy mag yi musa ñan ñoom tamit seen yaay waa euh, Bargny la man kooku sax mën naa wax ne lébu la ndax yaayam Bargny la ndax Médoune soxna yi am yëpp ñaan ñu ngi ko jële ñu ngi leen jële jot euh, Kajoor muy euh, aram faxa faan ak ay sëtu ngunj ñoom waa Kajoor lañu bi mu ñëwee nag fii dañ ko may ay soxna bu mu paree dinaa wax tamit ñooñu dama bëgg a wax rek ñi jógoo ci noonu ak li ñu fi andi ak ñooñu liñ liñ ñu jural tey jii fi ci dëkk bi euh, ñu jox ko Ndeye Gane Ndoye lébu la li ko ko jox mooy maam Medoune boobu ma la waxoon ne moo jógee sukeer ñëw da doon borom xam-xam njëkk li ko andi kabeer mooy boobu lébu dañ koy soxla lébu dañ koy soxla ko lébu yi soxla yoon ni Matar Diop ndax Matar Diop bokkaam la doomu ndeyam la ñu yónni Matar Diop mu ñëw bu ñëwee daf leen di dugal xalwa fii ci fi euh, euh, ñuy wax léegi boo maraîcher les beaux maraîchers bii ñuy wax nii léegi boobu ngi tuddoon bëntik dañ daan gor mang yi dugg fa def fa seen xalwa ba xalwa bi jeex ñu dem kon nga xam ne euh, ñoom yàgg caaroy bi yàgg na ci diine lislaam loolu moo leen juróon nag ñu jaxasoo nag nit ñu baax ñooñu maam Alaaji Sàmba maanaam alaaj Samba Xuuja boobu moo la doon wax ni ah, bokk na ci ñi nga xam ne maam Seydi Hadji Malick fonkoon na leen lool rakkaam tamit maam Muse kasaaliko yaakaar naa bi ñu demee Tiwaawan fan yi rek sax euh, sëñ Abdou mu ngi ci mu ngi ciy waxaat ci ñoom ñaar ñooñu ñooñu tamit euh, pour euh, caaro yi doon dëkk boo xam ne niti jom lañu nit ñuy bëggante lañu du ñu mën a defante lu ñaaw dañu jaxasew dañu rabatle woon famille yi dañu jël benn famille bi dugal ko fële jël kii dugal ko fële ba dëkk bi yëpp doon ay mbokk ndax bu ma bokkul ak yow ma bokk naa ak sama mbokk te bu ëllëgee man dinaa ruus a def dinaa ruus a def lu ñaaw bu ñu bokkul dara ma ak yow dinaa la rus a def lu ñaaw ndax mbokk gële ñu bokk am na nit koo xam ne ñoo ko bokk benn nit boo xam ne sama mbokk la sa mbokk la dinaa la rus def lu ñaaw moo taxoon ñu defoon loolu lu rafet yooyu rafet rafet yooyu ñu defoon ko ba nga xam ne dëkk bi def li ñaaw daf doon jafe am na mag sax mu ma daan dégg ne muy maam Moussa Niang moom mu ngi mu ngi jël caaroy 1927 ba 1947 bu mësee dégg nga ne doxandéem nga yaa ngi ci mbedd mi mu ngi ci biir kër gi mu dégg nga ne doxandéem turu doxandéem mu ne la tuuga waay loolu la koy wax nga baal ma ci wax bi wax bu ñaaw boobu naka nga ko mën a waxee mu nekk ganu suba la ak gana ngoon bu ma déggati baat bu ñaaw boobu ba loolu la gënoon a bañ ci ci ci ci ci ci kan euh, doxandéem boo ko ko waxee ak koo mën doon rek moom mënatu dootu ko mën a mën dootu mën a deretam daf ko ñuul boo koy wax rek si tàng-tàng li mu di ko ndax xam nga loolu defe defante yu baax lañ nekkoon na ñoog sëriñ si tamit defante lu baax defante nañu jaxasoo na ñoom ñoom jënd ay doomam dem boo seetee midu mi sëñ ci may na euh, waa njóobeen doomam mooy euh, jali bëkk jali bëkk moom la ma leen ab sa jomb moom la ma ab sa jomb ci la mooy maam yi ñoom ah, maam raan maam raan Thiaw ak waa njóobeen gii gi nekk ci yëmbal njóobeen bi nekk yëmbal Ablaye ñoom Ablaye Diop mbërëk ñoom daaw daaw da Diop ak Mali Diop ñëpp xam nañ dégg nañ Mali Diop yi ab sa ab sa boo kooku nag ab sa njombalo ab boobu medun moo ko jur jëlati na doomam ju ñu wax dëggeen ña ngi jox ko waa njéeneen mu meññ alay jéen kooku tamit non non non noonu la demee moom dafa jël parce que nit ñu baax ñi ñëpp cosaan muy caaroy géej di dëkk bu yàgg itam waaye di dëkk bu am histoire dëkk bu am loo xamante ne moom laan moom lañu ko daan dàkkantale mooy lan mooy am nay jëmi jamono Caaroy moo assuré woon dundub presque Sénégal ci seen mbay mu doonoon dëkk boo xam ne ci wàllu économie amoon nañu fi tur doon dëkk boo xam ne itam ci weneen wàll ci wàllu diine dëkk bu ràññeeku woon lañu ci diine Caaroy doon teeruwaay bu ñu bare ñoo xamante ne jóge nañu ci biir réew mi Caaroy bokk ci ñi daan teeru ñooñu ba bare bare bare bare bare loo xam ne mënoon nañu ko wax ci caaro yi waaye li ñu ci wax yaakaar naa ne bu doyul war na mën a doy war na mën a lu tax caaro yi amul ca ay cër yu ñu koy ràññee ah kay Caaroy am na ay cër Caaroy toppewul itam dafa ànd dafa àndoon ngir boo seetee ne en 1950 le Pikine commencé di toxu si le Pikine commencé di am mbooloo parce que ci la toxute yi di commencé buñ ñëwee ci ara yi lañ fi fekk te booba ci wàllu politik am nañu fi nekkoon ñooña ràññ ko ñu woon naam ngir booba noon la organisation politique réew mi mel ngoon la ca caare amoon moo dëppoo woon moo méngoo woon ak ab cëram ngir Pikine dafa ñëw ak mbooloom ba wan na wan na dëxëy dëxëy caaro yi ba tax na ba suet dama masaanam itam dañuy seet ña gën a bari mbooloo ñu séddaleen cër ba ëpp Sénégal gis ngeen nag seen émission démb ci dëkk bu rëy boobu di Caaroy Géej dégg ngeen ñi nga xam ne ñoo ko sancoon ak askan yi àndoon sanc dëkk ba ba tey jii ñu nekk fa di dund ci jàmm ak salaam eh, loolu di lu am solo waaye tey nag ci club xam sa bopp ñu ci nuyu Maodo Malick Niang ak moom Mamadou Wade parce que ñoom lu nekk daj nañu ko vraiment pour ñu dem Caaroy Géej di nuyu aussi suñu xarit Abba Siis nga xam ne bi ñu nekkee foofu ci station bi eh, wax dëgg yàlla moom bokk na ci ñi nu jëkk a xam caaro yi ñuy suñu xarit gëj nañoo gisee waaye Abba incha allah fan yi dinañu ñëw caaro yi nag nuyoog ñanu xamanteeloon démb ak tey waaye tey aussi damay wax képp koo xamante ni soppe El Hadji Tall nga ni dama am bés bopp moo ma gën a ñor ci bis yi mooy samedi 6 mais may defal ñaan sama ñaari waajur ca Pekes ma di ci invité képp koo xam ni sama soppe nga et ku mën a ñëw baax na ku mënta ñëwit nga defal nu ñaan ki leen doon présenté émission bi di seen xarit El Hadji Tall Ngol Ngol leen jox daje incha allah beneen yoon ci beneen dëkk ci réew mi jërë ngeen jëf